nee lu mu doon def nee dana ko bàyyi ndax déglu nee li sëñ Bassirou Abdou Khadim di wax nee lu mu doon def dana ko bàyyi déglu li sëñ bi wax nee xam na ni wax jooju rek moom dana ci jëlee njëriñ nee léeg-léeg nag nee nga joxe benn waxtaan. ma woo ko. nee moom mu woo la boppam. ni sëriñ bi dégg naa li nga wax léegi. jëlee naa ci man sama bopp. jëlee naa ci man sama bopp. lii ak lii ak lee. wala loolu nga waxoon. wala loolu nga waxoon. nii laa ko déggee nii laa ko déggee. nii laa ko déggee nii laa ko déggee. loolu yëpp. mais te loolu lépp kat. pour jël xam-xam. mais pour jël xam-xam. ci. ci li ma dégg mu wax ko. ne ci li mu dégg nga wax ko. bi ci mujj bi ci mujj. ne bi ci mujj. nga xam ne Serigne Touba Cheikh Mountakha. ne Serigne Touba Cheikh Mouhamadou Mountakha. wax jëmale ko ci daara mag ji université. wax jëmale ko ci daara ju mag ji université bi. ak li nga xam ne. ak li nga xam ni. mooy soos xam-xam. mooy soos xam-xam. nit. ci nit. ci état. ci état. ci république ci république ak ci yar ci yar ci réew ci waxtaan woowu ne waxtaan woowu day déglu naa ko ne ba nga ko déglu na ko ak ni ko sëñ Bass firé ak ni ko Cheikh Mamadou Bassir bi toog na mu firé wax sëriñ bi déglu naa ko ne déglu na ko dégluwaat dégluwaat di wax ne daal sa xarit sa xarit sa soppe sa soppe Euh, taalibe sa taalibe seet si na la seet si na la pour gërëm la pour gërëm la rek ci sa taxawaay ci sa taxawaay parce que xam nañ bu baax ne xam nañ bu baax nag ki loolu moom politiciens yi dañ koy xam ne politiciens yi dañ koy xam jafe-jafe porte parole jafe-jafe porte parole porte parole porte parole yor kaddu yor kaddu bu gën a métti amul bu gën ko gën a métti amul te moom ni mu koy defee ne te Mbacké ni mu koy defee at yi mu toll ci at yi nga toll kéemaan man kéemaan la kéemaan la. yàlla ko fi yàlla bàyyi. ne yàlla na fi yàlla bàyyi. ànd ak wér ak wér ne loolu daal moo doon kàddu yi. wax ji gudd na waaye nag li nekk ci la. waaye li nekk ci xolam rek la wax. di la gërëm bu baax a baax a baax. ne di gërëm bu baax. sëñ Sidi Ahmed. sëñ Sidi Ahmed. ak sëñ Bass. ak sëñ Bass. ak ñi nga xam ne yëpp. ak ñi nga xam ne ñoo fi nekkal. biir haut conseil bi ci biir haut conseil bi. waa Touba waa Touba. seen liggéey rafet na. seen liggéey rafet na. du ma def lenn. nee du def lenn. te waxtaanu te ak ñoom. te su ma ko defoon benn yoon. nee bu ko defoon benn yoon. bu ci gisul njëriñ. bu ci gisul njëriñ. mu bàyyi mu bàyyi